waaw euh, tey suñu activité tey bi euh, dafa dugg ci li nga xamante ni mooy suñu programme bu ñuy wax citoyenneté et promotion de volontariat bi nga xamante ni ministère de la jeunesse am na ko waaye itam mu làmboo li nga xamante ni mooy euh, programme bi nga xamante ni mooy programme social bi nga xam ne président de la république sant na gouvernement bi yëpp ñu engagé wu ci loolu moo tax tey ñu ñëwoon fii woo ndaw ñi génne suñu ay service tamit également pour que ñu maye deret maye deret dafa am solo parce que deret kenn mënu ko remplacer dëgg la ñu ngi ci période du coronavirus mais ki nga xamante ni dafa feebar am na ci feebar yoo xamante ni coronavirus fi la leen fekk démb am na tey am na ëllëg day am euh, ñuy ñaan yàlla euh, ñi nga xamante ni feebar nañ ci ñu wér waaye xale bi nga xamante ni dafa am leucémie par exemple mënul xaar coronavirus bi jeex malaat bi nga xam ni dafa am cancer mënul xaar coronavirus jeex mais jigéen bi nga xamante ni day day mucc mucc bu metti tamit mënul xaar coronavirus jeex loolu moo tax tey ñu ne dañuy maye deret pour non seulement feesal banque de sang yi waaye tamit xiir ndaw ñi ci ñuy continuer di maye deret maye deret warul nekk loo xamante ni rek dañuy xaar ñu woot euh, centre transfusion que ñu ñi ngi ñi nga koy remercier bu baax a baax Nous euh, xaar rek centre transfusion woote ñu soog a dem wala ñu alerter nit vide na ñu a dem tout le temps pour dem di pour sauver des vies loolu moo tax ñu activité tey bi may transfusion sanguine nga xamante ni tey ñu activité bu am solo bi remercier service remercier particulièrement euh, service social du ministère de la jeunesse nga Diaw merci. je vous remercie euh, l'activité de ce matin euh, entre dans le cadre de l'exécution de notre programme citoyenneté des jeunes et promotion du volontariat qui entre en droite ligne avec la politique sociale euh, à laquelle le président Macky Sall engage le gouvernement. Donc je voudrais profiter de cette occasion pour euh, saluer l'affluence euh, des jeunes ce matin. les jeunes ont répondu massivement à notre appel et je m'en réjouis dans la mesure où actuellement, certes, nous sommes dans une période de pandémie, mais cela ne doit pas nous faire oublier qu'il y a d'autres maladies à côté qui sont là hier, aujourd'hui et demain. Et je pense qu'un enfant qui souffre de la leucémie ne peut pas attendre qu'on indique la pandémie du coronavirus. Une femme qui accouche difficilement a besoin de sang et les malades de cancer également. C'est la raison pour laquelle nous avons initié cette activité, non seulement pour remplir les banques de sang, mais également inciter la jeunesse à être donneuse. Je félicite euh, les services du ministère de la Jeunesse. Euh, je remercie le secrétaire général et le directeur de cabinet pour l'organisation, mais je félicite particulièrement le service social dirigé par euh, Madame Dia. Donc je remercie tout le monde, toute la jeunesse qui est venue répondre massivement à notre